ah kenn du la gis mami duñu xam fu ñu fay la kànte mami sa place sax dañ fay ñëw duñu la fa fekk mami télé ba rek ci télé rek lay gis mami lan mooy sa fort ba loolu lan sa problème ak nit looy dawee nit ñi mbay ma nit ñi bu ñëpp dee way du man dong damaa bëgg aw bokk ma ci doomi daara laa bàyyi ma rek ma toog sama rëpp bi si si la loolu kenn euh, si la lu tax def loolu si ay télé yi xanaa yow yi lu tax loolu damaa néew xam-xam jarul kenn di ma invité ah sama xam-xamam bariwul. non de si dafa invité yaay bañ wala pour kenn du la gis si si kii kenn du la gis si ay coow. mbay te ñu ne liggéey bi coow ko coow ko coow moo tax muy muy muy baat muy moo ko téye. lu muy maye du ma ko am. Mhm. mbay man ñépp a naw seenub judd. Mhm. kaña sax dafa naw juddoom ay man may damay juddub réew mi di doomi mag Maxtaar Ndumbe Jóoba ma jur. Mhm. ku dem ba mag mu baax mu ñu tudd ci réew mi nga koy jox sagari njaam mbaa mu lay jox sagari njaam mbay war ngaa rek la sam pecc mm-hmm. te nag xam nga àdduna mm-hmm. lu waaye di wax fexeel ba ay li yéwén mm-hmm. di jibee fu ne ci say mbir mooy bu waxkat yépp waxee ba pare ñi am dëgg tey xalaat ndax ki amul xel tuuma rek la mën a def ki dof day juger mais ki am sage bi day toog di analyser man nag je préfère bu ñëpp waxee ba teeral sage bi ne ay la yéwén ndaw la waaye ak a xam boppam. am li nga def da nga koo jàng wala wala doon la si yow parce que dañuy jékki-jékki rek gis la gisuñu la da nekkoo si ay rajo wala da nga nekkoon si beneen télé wala lan. waaw jaar naa ak Ndoye Bane de la semaine. Hmm. mais mosuma def télé. Hmm. boobu itam defuma ko woon sama métier dama doon jàng. Hmm. mais ngay wax jàngoo ko wala lan la wax ji ngay wax mu kii soo waxee ñu ne mami mu wax soo waxee ñu ne moom lu foo ko jàngee. mbay man waxaane laa wa yebbi wax may wër di wax bu ma kenn yéem nañu yéem ki may wax loo muy rabbi sama waati wal arti li la maître bi jàngal kilo la lay jàngal heure bu ca paree pare na ci boo taree ba yem ci kilo bi da ngay jeexal waaye may ak suñu borom. suba ko xëyee dolliwaat ceeb kilo ndax ma nga jël yu mu tàmbalee gul te pour ñun jaam ñi rek la. émission yu xaw ma kañ la kañ la commencé wareef bu ba léegi ay wax yu bees ngay wax. macha allah sa kanam ne la mami euh, ñu gis la bi nga da nga nekk da nekk wareef ak mère Dégel ngeen nekk ngeen nekk di nekk di nekk di nekk ba mu gëy ba ba mu xëy dem bàyyi la fa loolu yëg loolu waa mbay li ma yëg kay jarul laajte lu ne fànkeen du ko jeex te wax bu tungoo mee seede neex a nettali mm-hmm. li ma yëg kay sénégalais yëpp laa ko dundandool ku nekk xam nga mm-hmm. man nga li ngay taxaw di ko wax a waxaat sax day mel ne daa am koo bëgg mun la ci am ndeysaan te mhm. man li may def soxlu ma ci am ndeysaan man ku ne xam ne ma ci leble du ma ci fay bor dama koy mën def ko rek tële ko ba mhm. aca yàlla na ko yàlla yërëm euh, da ñu gis mu mu làqu ñu ñëpp Sénégal yëpp teñ ne ñu na naan ah mami de moom la ñu jox émission bi mami de moom la ñu jox émission bi mais man a mami tey mu tëj koo def moom la ñu jox émission bi ñu xëy fekk fa beneen image sénégalais la ko wax waaw parce que parce que commentaire dama daan laaj boobu ba léegi amuñu woon kenn kenn amul fitu woo la kenn defoo interview génnoo fenn boobu ba léegi far yàlla man dama léegi li may damay jàpp. yaay fii par rapport waaw lan moo tax ñu jékki-jékki rek gis fa keneen noo def. waaw mais loolu waroon am. noonu la waroon demee. noonu lay demee. non non mais mais euh, wax nañ la ko après nee nañ wax nañ la woo nañ la ne la kii moo fay nekk wax nañ la ko. mbay xam nga man kee fii nekk kii nekku fii yaay nekk fii yaay nekk fii man kooku engagé wu ma. man xam nga lan moo ma engagé. sama rôle ci li may def. Mm, mais parce que Sénégalais yëpp man mii man mii man mii man mbay ki may frustré. Mm-hmm. maternité bi mu war a juddoo pose première pierre bi dimanche bale di mujj ci weeru janvier lay ñëw. <laughs> man kuy soje ko wér doo ma frustré. <laughs> non mais wett na la tamit wett na la parce que yow sax xanaa yow sax war ngaa xam yow sax war ngaa xam war ngaa xam loolu. war naa xam la. yow sax war nga war nga war ngaa xam yow def nga def nga ko sa xel ne def nga ko sa xel en conscience war nga ko def nga ko. <laughs> mais mbay da ngaa neex. non def nga ko sa xel tamit moom it man def nga ko sa xel. bu fekkee dafa ku la yónni kooku dafa neex. <laughs> mbay li ngay def ci sa xel mooy li nga xam ne yow da nga incapable di wut ku la diri wala ku la yóbbaale. mbay man damaa mat li ma doon. mbay man damaa fees sama place. mbay man kuy lim ko incapable doo ma ci boole. kuy lim fu ñuy promouvoir. mais premier ministre boo gis. Mm. mi ngi mi ngi yootu président. daa fekk feesul place su premier ministre premier ministre ëpp pour liggéey président. Ah, ah, parce que takk cap foofu capitaine nga fa xaw ma takkoo takkoo fa capitaine xaw millier nga doon football ba tey yaa ngi si millier Eh, eh, takkaguñ la capitaine loolu tamit dina ci sa bopp bi. mbaa yëg nga ne am na milieu buy takk capitaine ndax bal bu dugg mooma. Mhm. am na milieu boo xamante ne daaw daaw gi moo ko takk. Mhm. gu daaw jéggi moo ko lakk gu daawaatig jéggi moo ko lakk te daay gii di ñëwaatig moo koy lakk. man bu ma centré wul dara du dox. ah <laughs> dara dox mais euh, yow ñu gis ni complice bi nga amoon nag euh, maire Dieguene ak complice bi nga am fii bokkul. fii <laughs> oh amul complice parce que. foofu wan ma différence bi. non non bu bu bu ma déggee nekkee da nga daan def da nga daan fëlaale di wax di. mel ne tey laa gën tey laa gën a mën a tël bal bi. Ah, damay zongale bay damay <laughs> zongale ah. bay nelaw ah. mbay. waaw mbay va te chercher école 10 mbay tey laa gën a mën a zongale. ah hmm. ah. Hmm. tey laa gën a mën a zongale. mais lan moo tax duñ la gis yeneen émission yi foofu. maa ngi foofu la nga nekk maa ngi waaw kaka kakataar kakataar leneen la mais ñu gis la fii gis la fii gis la fii gis la fii ñu waroon xaar sa émission bopp mami parce que yow li nga mën wane goo ko. waaw même mbay dëkk ci dëkk ci lu nekk nga yor ko te deewoo xorom rek la ko yàlla may peut-être ñoom ñi moom seen télé moom seen émission. Mhm. ñoo sentiragul sama utilité ci beneen émission. parce que loolu ñoom ñoo ci gañ gagné ndax promotion télé bi lay doon. Mhm. man su ma bëggee def beneen émission mën naa ko def parce que am naa sama chaîne YouTube. Ah. sama ay compte Uh-huh. mais xëy na ñoom sentiruñu man ma def beneen émission buñ ko sentiree ñoom ñoo ciy gañaa ah non non mais mais mais pourtant ko am nga talent bi. ndax mën naa ko mënuma ko moom kenn waxatu ko ndax Youssou Ndour a ne 2022 saabu day fóot boppam. Uh-huh. <laughs> Euh, est-ce que euh, am nga am nga am nga kii affaire bi ak euh, Youssou Ndour ah xaw ma kii Ndiaga. waaw Ndiaga njëkk a miinante kii ngeen yéen a ngi wax yéen ngi kii yéen ngi comme yeneen xale jigéen yi li ñu ko yabee di ko kii est-ce que. non man nag du ma yabanteeg nit. Mm-hmm. déedéet man nit ma lu ma yabanteeg moom. lan moo tax moo jiite télé ba. Mm-hmm. employé laaj télé bi yàlla dogal na sax dañoo rusante nag. moo tax dootoo joxe jox moom la man mbay kuy xaar ma maral la say tànk pour nga jariñ ma doo ma jariñ. ah que mooy patron bi. waaw dama ne ah, ah. dama leen arrêté leen patron ne veut pas dire euh, ku ñu war di maral say tànk man li ma lay liggéeyal nga di ma fay boo ko mënoon liggéeyal ko sa bopp. man talent laa indi. Mm-hmm. li ñor tàbbi ak li ñu gësam dafa bokkul. Mm-hmm. man talent laa indi man du ma mar tànki kenn du ma maram rapaanu kenn du ma dunguru kenn topp ma ci ginnaaw kenn man dama fier saa xewar Fatmaay sama maam fukki yoon ak ñeent. Mm-hmm. mbay man du dunguru. déedéet loo nekk nekk sama patron respect. mais mais loolu est que am na amati na Sénégal dañ ne soo respecté sa patron du la jox yenn euh, qualité yi. kon moo lay wan ne kon Sénégal fi mu jëm kon sama pays man comprendre tuma ko parce que bu fekkente ne respect dafa génn ci diggante ay doomaadama lan moo fay def. Mhm. manque de respect te fu mu nekk baaxul. Mhm. pour man nit ki lu la sa dignité mayul sa ngor mayu la ko leneen loo am lu nekk da nga ko wut ci neneen ah. Mhm. non non non non te nit ki nga di ko liggéeyal. wala mu di la liggéeyloo. non respect rek. ah, ah, ah sa digganteeg Bouba Ndour. waaw ah, Bouba dañuy yebante. Mm-hmm. ah ah kon la sa patron la moo tax yëpp non bu dañu yebante na veut pas dire que dañuy dépassé wante mm-hmm. peut-être moom moo gën a fréquent lu ñuy gisante mm-hmm. parce que tout le temps mu ngi fii de temps en temps dinañ tooñante ñoo bokk aussi ay gis-gis ci affaire de maam ci affaire de aada ak cosaan ci affaire de bëgg taaw yi lu rëy donc ci loolu lañuy ñuy xëccoo uh-huh. ah, ah, ah, mami ñu ñu dégg ne yow Youssou Ndour rek nga amal affaire problème bu am yow Youssou ngay woo doo woo kenn est du loolu tamit moo tax nga nga nga kii parce que Youssou tamit li muy li muy calculer teleem bokk euh, bëriwul. ku la wax calculé wul télé. parce que parce que calculé wu ko parce que affaire yi fay am yëpp ñu euh, kii dina toog ay 6 mois du génn kii toog trois ans du génn kii toog 4 ans du génn te ay loolu tamit. Mbaye di woo moom alalam te calculé ko loolu ku ko wax day wax ko sax ala moo tax kon mu bàyyi jaxasoo bi noonu ah. ban jaxasoo. non kii génn ne man dañ maa frigo kii génn ne def maa frigo kii nee na dañ maa frigo. biir télé ba daa am frigo. ah waaw ah gisoon nañ fi ñoo xamante ne génn ñu ay lam lim Samba toog na ay at yoo xamante ne génnul keneen ak keneen koo na ah keneen xale yi jigéen yi noonu. est-ce que jëluñu woon conseil. non jëlu woon conseil man jëli naa lim Samba gisoo li mu wax nee ko waaw moom. mu waroon gisuma ko. waaw waaw waaw moom nag dafa noonu bàyyi. waaw parce que frigo bi dafa yàgg. ah Lamine du bàyyi Lamine mooy xorom ci cin. Kouthia tamit bàyyi woon na parce que xam nga li li bàyyiwul da doon noppaleeku rek. Ah. Kouthia mooy TFM. Ah. yow tamit amoon nga fi ay temps yoo xamante ne dañ laa toog ay news yoo xamante ne gisuloo ah. c'est pas vrai. ah man mosumaa toog man damay liggéey du lundi au jeudi samedi ma ñëw kàkkatar yàlla dogal na fukki at yi daanaka mosuma am congé. Ah, man damay liggéey. Hmm. <laughs> ñu gis la tamit yor nga sa benn liggéey beneen liggéey si suuf loo xamante ne boutique la yaa ngi koy def lu euh, euh, kii est-ce que du loolu dina permettre ngay concentré si télé bi. mbay man damaa jomba yalwaan turu sa ñaan. Hmm. te damaa yor njaboot. Hmm. sama yaay jaboote ay jigéen. dama tàmm boot. tàmm yanu sama njabootu ndey. kon leneen lu ma def lu dul daan sama doole. boo jombee yalwaan te rusa ñaan. te sa ndong seexlu ba doo foo ko egg tàllal ko fa. ngir wut loo am ah mbay nag dangay takku nag jatu nag soccet man damay liggéey man damay faay mbay 97 ba nëga ni tekkiwuma sama laxasaay liggéey rek laa xam ah foofu loo fay jaay lan nga fay jaay mbay euh, néegu sëy ci senegal yi ci ëpp maa ko téye ginnaaw baaxatul man de yi jaar ci man a ngi baax mhm. ndax bërki démb laa fête sama dix ans dix de coaching mhm. waaw waaw waaw nga boo gis naa image si réseaux yi ah nga si nga si doon kii wag euh, ba tey yaa ngi boobu foofu tamit yaa fay gën a waneel sa mbëggeel si Mère waa xam nga mbay kóllëre ku ko amul mm-hmm. Mm-hmm. ci ku dee mm-hmm. boo ko amee ci kuy dund mu war laa ragal xam nga bu siggil ndigaale bare kii kiñ fi bàyyee baax waaye bu yoonu xabroye mokkee non non bu yoonu xabra ya mokkee ka dem moo baax waaye bu sigil ndigaali bare ki mu fi bàyyee baax mhm. mbay ki nga àndal bi muy dund mu neex mhm. bu dëddoo war nga koo delloo njukkal mhm. ndax lépp ci kóllëre lañ ko teg et puis sénégalais yi dafa am lu leen ump déggeen ki ko njëkk a denc maamam ak sama maamu yaay ñoo bokk benn ndey ak benn baay déggeen bu amoon doom foofu samay sang la ñuy doon tey mm. keroog bi ñu gis na waa télé ba ñëpp ñëw nañ sot la sot la si la mais gisuñu fa Iba Kala nañ fa woon xëy na danga koo gisul rek ah mi ngi fa woon. da nga koo néegu sëy yi néegu sëy yi lan nga fay jaay. néegu sëy yi mbay ku nekk xam na ne frère ak sœur moom maa ko ndengeeñ fi ci mim réew ndax lu ci kenn dul def laa ciy def. dama cee nekk lool. Mm-hmm. mbay damay jaay li ñuy wax wàllum nopp mais pas nopp yu daganul du ma tar yàq de. Mm-hmm. noob yi mag ñi daan téye seen kër yi ba ñeenti jabar ak seeni doom wujj peccoor gay ñëpp nekk ci kër gi te kër gi du toj loolu laa delloo si mm-hmm. mbay jigéen ñi nga xam ne du ñu yëg plaisir. Mm-hmm. te xam nga yokkamti ko yokk nam njoolaay waaye ko son dellu sa place. Mm-hmm. jigéen ñi nga xamante ne dañu am infection ndax dafay lu xew nag. Mm-hmm. problème bu baax a baax a baax. cam laay laay man de yooyu yëpp lañ ciy taxaw bu baax. waaye góor ñi nga xam ne dañoo am problème mu ndigg lu dëgërut kawas yu tooy yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp macha allah macha allah dañ ciy dox lu wér. yomb na wala yomb na sa place fu mu nekk. ndax yomb na. waa jafewul de. jafewul de sans dépend ci ku nekk ak li nga dikkee rek. ku ne la nga fa bëgg rek nga fa yam. Ah, mami nga nga bëgg lancer ñu message coow li am si diggante ah, yaayu Mandiaye Seck ak Mandiaye Seck audio yu ñëpp di kaas ne yaay ji war woon def loolu ñu polémique bëri ñu ne yaay ji day yàqal doom ji moo tax polémique bu bëri soo doon yaayu loo koy conseillé. ban polémique la noonu. non dafa génne ay audio di ko saaga naan ko doo tekki sa àdduna. ci diggante kan ak kan. Euh, Mandiaye ci diggante yaay ak doom. Hmm. waaw ñu si bëri yow da ngay gis da ngay wax si ay. luñ jote. ah kenn xamul looloo looloo jaaxal ñëpp. lu di wax jaba saagam. Mhm. non dama ne luñ jotee lu di wax jaba saagam. Mhm. loolu la jabat lijjanti. Mm. Mhm. yaay ji moo saaga doom ji. ba mu koy ëmb dañ koo fekke woon ba mu koy wasin dañ koo fekke woon ba mu koy nàmpal dañ koo fekke woon ba muy neex ak naqari seen diggante dañ koo fekke woon loo xamul ba ko fa loo moomul ba ko fa mhm. loo xamul bu ca wax mhm. luñ la boolewul maandu ca mhm. Cheikh Abdoulaye Mbacke sama yaakaar tey ëllëg daf ne àdduna ñett yi rekk fi li nga bokk li nga moom li nga doonul dara li nga bokk jël ci séddoo koog ñu ko bokkal ndax ngor ci la nekk li nga doonul dara maandu ca ba ko fa li liñ la boolewul nag teg ko fa te romb te dem ci sama ngañ ah, ñu ne ñu ne li mu xas waali moo tax dafa xasoon waali fan yee passé dañ doon bokk ñoom ñaar papa ak papa luñ bokk papa. papa kan ak papa kan. Euh, maanaam euh, euh, Ousmane Seck ak ak Thione Seck ñoo bokk ndey baay. waaw Ousmane Seck jur jur jur Mandiaye. waaw Thione Seck jur Waly. waaw mbokk yàllaa ko tànnal boppam. Mhm. man sañ na maa màgg dem ba nekk magum jëm ne sama nationalité neexuma ma changé ko. Mhm. dem wuti ko fi mu ma saf. Mhm. sañ na maa judd ba màgg ne nii ma ñuulee neexuma ma changé ko. Mhm. sañ na maa màgg dem ba yàgg ma ne nii ma mel nii neexuma ma def ko neneen. waaye ndax yàlla dina la tànnaluk mbokk nga di ko soppi. na ku ne tëyëb famille te bàyyi ñeneen ñëpp seenu famille ñoo duyee ñoo yenn. <laughs> lii nañ la ah, ah ana ngi fii di baax. Moustapha Diop mi ngi fi di baax. yaa ngi ay magal lan ngeen bokk. ay magal rakk la. ay magal rakk ngeen lan moo tax demoo jege ko liggéey ak moom. jege ci la. nga jege ko rek parce que kilifa la tamit. moom day politique man damay liggéey. ah lan moo tax nit ñi nit ñi di bàyyi seen liggéey di daw di di ko wut si yow nga koy ngay ngay ngay wut lu lu tàqali ko. bu jàmbur yi dawee di ko wut si man mii rakkam ma koy toogaanu buñ dikkee ban place lañ fay fekk ñun fa ñu war a gisantee jàmbur du fa nekk. ah ñu ne seen diggante rax taxul te ay ay mag rakk ngeen. ratax bandang mhm. kooku mooy man maay moom. mii ma sol barki démb ci sargal bii. Mhm. jotaayu lingeer bii. Mhm. jabaram bintu Rasool Njaay ma ko jëndal. mbub moo mës a gis ma ubbee ko quartier général jabaram bintu Rasool ko jënd. bu indee ravitaillement sama kër weeru koor ba ba weeru koor di dellusiwaat du ma jënd ravitaillement. Moustapha mooy man maay moom. kon dara xaw ma sama mag maay rakkam. tey la ma gën a jariñ tey la ma gën a defal lu baax. lépp lu ma ko war a waxee damay taxaw wax ko fa ñuy gisee nag dañ fa du taal portable duñ ko enregistré ndax soxlawuñ ko mhm. ñaari bokk yu tëju di waxtaan lu ci yoonu internet man moo tax mënoo woon ñaan kii tam comme ni mu jegee Macky Sall Macky Sall may la oto comme ni mu lu ma koy doyee ah mais comme si nit ñi dañuy laa commencé dawal yàgg na moom mbay man jamonoy jóg nu dat ngu ba tey maa ngi dawal lu ma moom de mhm. man mbay dama laa wax ci bi ñuy ubbi ne la dama jomba yalwaantaru sa ñaan mhm. man mbay lu góor ne bu subaa mu def ko ma def ko ci guddi gi bu ma xëyee gungi leen bi ñëpp nee nañ way man dama ne deng mm-hmm. mbay ñaanuma sarxuuma àbbuma lebuma taxawaaluma tambaambaaluwuma mbay mm-hmm. li ma am doy na ma mm-hmm. <laughs> ci oto yu mujj yi laay dawal de <laughs> almadi laa dëkk de te maa ngi def li ma sax te boo ma xoolee xam ne sonn ma de tarkalla yàlla na yàlla xeeb dool ñaanuma kenn <laughs> jërëjëf jërëjëf mami